nga ne watuñ gars ñu ne crêpe bi baaxul baaxul si heure bi kala boka tu baru kala boka okay now i will speak english if you wish we are in england he in belgium algeria viva algeria cheikh moom kañ kañ mu ne da ngeen commencé entraînement yow man dama xamul yow lay laajte yow. c'est sûr Cheikh bu yàgg ngay waxu waxu entraînement yow fàtte ah Cheikh yow tamit waay. Eh, I'm from Sudan. non yow lay waxal hi Sudan how are you okay. I am from Senegal. Awa Awa Awa Cissé. aw xaw ma de xaw ma de nañu xaar rek nañu xaar xaw ma nee na kañ la championnat yi arrêté xaw ma de. Abramovich eh. Luis hello from Egypt. Abramovich. Club Force Lay. Hein? Ah, elle è... No, non è lei. Farhan, Farhan, Farhan. Mi segue, yow demal lijjanti sa club dama lijjanti sa club bi Mamour Mamour bu Manchester United dama lijjanti sa club booy moo gën si yow. Xawal. Mamour ndax nee na dañoo perte championnat ma ne dama lijjanti sa club. <laughs> bu ñu ko pertaatee bu ñu ko pertee garaaw déwélu ñu jëlaat incha allah. ok. mais non mais ça yéen pire. waaw. c'est sûr jël. te équipe bi dafa tiit da ngeen tiit nag. ah. da ngeen tiit de. yéen. <laughs> tiit comme ça seen jour yi dañoo tiit. sax. Hendo. to am bal mu génnee temps ci camp yi. Euh, lu mu def. waaw doon dugg mais contre kenn du non min na min min ngay waxal xanaa. waaw waaw. mbaa si camp la wàcc mu génne mu génne mu garaaw. c'est Jibi eh Jibi Jibi Cissé ok y pas problème madame Cissé ok. mu ngeen ñëw après. Sadio ana ñankatan bi <laughs> euh, ñankatan mu ngi fii de bon de temps en temps dama koy lekk quoi de temps en temps quoi. mais yow waay wuy de bay affaire bi saf na de. barki yeneen kii bi Cheikh bul fàtte soxna si moo ko tàkk de moo ko moo ko togg de. waaw loolu caaxaan de italien la ay moom ay crêpe bi nii baax si loxom ay ay ay hmm. lekk tubaab yi nii nii si loxom mais affaire africaine yi moom il faut dem Sénégal. attends yaa non awa non awa awa pour toi ça awa. ok Fatima Cello. <laughs> Fatima Thielou takk sirib si loo nekk yaa ngi si jàmm. Eh, Mbaye am na benn dama xam benn eh, xaw ma kañ la exactement yàgg na quoi dama dama doon wax wax ak moom Facebook quoi Fatima Thielou la tudd ko mu ngi Dakar quoi. waaw depuis deux mille je sais pas deux mille douze treize comme ça la la ko xam mu ngi nii mu envoyé la envoyé message bi. waaye mm-hmm. mais elle est gentille elle est bien très gentille Fatima Thielou.

Atlético moom du jouer Atlético moom day défendre <laughs> loolu moo tax mu compliqué par par contre Barça moom day day day dañuy ubbi quoi dañuy jouer jouer mais Atlético moom day bañ a jouer quoi loolu moo tax pour jouer ak ñoom dafa compliqué quoi. Turquie ban ban heure moo jot normalement. ok what time is in Turkey. ñoom école deux heures temps ñu rawee de fii nii eh, mi ngi waxoon ñu nii deux heures du matin biir bu ngand bi nee na man damay yaram yaram damaa bëgg jigéen <laughs> non kooku kooku kooku xam na la de. Mamour bu ma pondooree moo man sa la. yaaram maa bëgg a jógee yow yaaram yaaram Ibadou nga <laughs> yow. ah. yow Ibadou nga. kañ. yow la Ibadou wax de man waxuma la loolu. ah yow kay yow kenn du yow. saa Cheikh. non non du ma Ibadou kay. Fatima Mbow. ban. Fatima waxul Mbow de Cheikhu. Fatima Cello laa wax Cheikhou. Fatima Cello nga ni boobu. Fatima Cello non xaw ma ko xa xamoo ko Cheikhou xamoo ko. sama jël sama système. non mais Kobe Kobe Kobe Kobe soof nga ah ngay naan ay black xaw ma ngay waxu waxu waxu wootu ndel ka kuy waxu wootu ndel non xanaa sama leel nga bëgg gis doo ko gis de xanaa si biir terrain bi waaw yow. Mbow sama sama boss la. merci rek nee na Mbow bosam la. Cheikh waa dëgg neexul de Mbow yaa ko yaa ko moom. ah ok non Fatima Thieló laa wax Cheikh muy waxu waxu Mbow. mu ne Sadio am nga am nga lan copain message boobu fàtte ko rek ngay waxu waxu gel Yes, for right. sure. We're going to win the league. Yes. <clears throat> tu prépares jouer pour ah Kobé message boobu bàyyi ko biir rek bàyyi ko si biir loolu du waxu fii. xam nga. nee ndax dama jouer Barça wala Madrid ma ne ko loolu du waxu fii. <laughs> loolu da koy zappé da nga koy zappé. da nga koy zappé. waaw. baal ka ma ka ka na ka. kii na waxal waxal Sadio mu takk non Kope. Kope Kope jël leen beneen waxtaan ngeen waxu waxu takk jabar bu jotee rek yomb. voilà du ma répondre les copains Keita Cheikh t'inquiète pas <laughs> mu ne affaire bi Chelsea la yow yow waxu Chelsea ngeen nag di wax baax na xam naa Chelsea sa équipe la garaawul amul problème Chelsea moo ko yor amul problème nangu Chelsea lan awa laissez centré sur sa carrière. nee na où t'as gardé le ballon d'or le ballon d'or il est là-bas à l'autre côté. waaw waroon nga ko indi nag wan ko wan ko gaay de. ah. wan ko gaay ballon d'or bi. mu ne Sadio ana ana. Cobain waxu rwandaise bi ni nga ko gisee laa ko gisoon bon. waxu waxu rwandaise. Eu falo como ele prende tempo. É? A março, é? Santos, de Brazil. Hi, Brazil. How are you, Brazil people? Ndey Fatou, Ndey Fatou nee na bandido, bandit xaw ma bandito leggete avevo scritto un messaggio di Facebook. No, non dico questi cose qua. qua. Sto scherzando. Ma dopo quanto tempo parliamo fin de... perché non lo dici? Adesso vuoi dire? Give me, give me allora, ah, parliamo telefono. number. Moha Sek. Moha, ça va, Yang Sijam? Mallorca, il est en Espagne. nee na toog toogloo sama équipe Barça jour ah Copain yow looy mer Barça toog ngay mer xanaa gisoo Atlético dóoruñu ah Copain football la kay da nangu rek Copain da ngay nangu xam naa ne mauvais perdant mais da ngay nangu Barça toog na toog na yàgg na ñun ñu ngi nii toog waxuñu dara ay eh, waxu waxu Barça sa équipe Barça moo yorul yoru yëpp mais seen soirée bi nu mu demee keroog euh, bi nga demoon soirée yi si Ndour Mbour Mbour la woon na. bi nekkee Union mais gis naa keroog yaa doon battre yi si Ndour baat ma ko dara yow la waaye ma jël xaalis ca foofu. waaw mais loolu c'est normal sama copain nga nga dem baatere loolu dara nekku si. waaw mais du question baatere baatere booy taxaw di def. copain copain copain copain maa la wóolu de <laughs> wóolu naa la da nga doon baatere ñaata ñaata nga fa yóbbu woon. vraiment nag cinq cent mille laa ko jox. non copain bàyyi yooyu yow cinq cent mille cinq cent mille non man gaw ma man dama foogoon ne cinq cinq millions ngay wax. non cinq cent mille laa ko jox si waaye doy na instant boobu tamit. man sama copain nee na cinq cent cinq cinq millions nga doon battre. non man battre moom nee na bi nga génnee noonu da nga doon ci biir di ko di ko di battre wàllu fan si. <laughs> non vraiment nag. dafa fekk moom laa yor sama poche ma jox ko. saa soirée boobu moo taxoon moo taxoon la première fois nag ma ah. te naa fa i première fois ma def mais ma fa demee vraiment nag. affaire bi dafa la woy lu neex nag dafa woy lu. grave eh, non mais yow yow nga wax. nu mu tudd mais demoon nañ soirée waal yaa ngi fàttali ko benn jour ñu dem. équipe ñu ci wóor waaw mais t'inquiète pas fàtte ma ko. da nga jékki-jékki daw kenn gisu fa. bilaay yàgguma da nga jékki-jékki daw te kenn loolu la daw la dama dama dugg rek xam nga rek dafa bëri xaw a nit ko xam nga. yow non non xam nga des fois da ngay a fecc xam nga ngay da ngay bëgg a def say affaire bu sew si si suuf mais gars yi dañu léegi loolu moo tax ma daw ma ne ko. mais boobu toog nga toog nekk foofu mbay ñëw si man chaque mbay mbay. mbay nii man jékki-jékki Sadio ma tourné Sadio la ay quatre heures et quelque Sadio tax nga di ko man ne kexa fóol man dama dugg génn ma gis situation bi nu mu demee rek ma ne ko non fii moom mooy loolu quoi fii moom. amul benn nandite amul benn nandite fii rek nandite yëpp génn nañ foofu moom mënoo fa def dawal ko mais mënoo fecc mënoo xam nga mënoo waaw waaw dëgg la <laughs> bàyyi ngay wax da xam nga rek am na loo xamante ne yow boo sa bopp da koy xam quoi xam nga rek après xam nga nit moo mel noonu ko da ngay xam ne ne fi moom doxul rek da ngay bëgg foofu mënul nekk ko ah, baaxul ah non man fecc laa wax waxuma leneen ngay waxu waxu ay waxu affaire fecc laa doon <clears throat> bon fan laay fecc foofu. naa fecc de damay fecc. maa sa vidéo bi ngay fecc maa ngi moom fii. waaw ba ngay fecc bu nekkee si couloir foofu noonu ak bu ñu demee maa ngi denc ko denc ko. non dama denc. Jonas Kameni tu peux poser la question y a pas problème frérot. mais dama doon dem euh, nu mu tudd mosoon naa dem est-ce que mosuma daje ak yow boîte. maa yow. mais yàgg na. mais loolu yàgg na de. loolu man dama demoon nu mu tudd dama demoon parce que su ma ñëwee vacances quoi dañuy faral xam nga di lekk ay vingt trois heures yooyu quoi comprendre. waaw. léegi ma ak sama copain quoi dañoo dem am na fu ñu demoon quoi mais aw ma lekk léegi ñu continuer dem Almadies quoi léegi après bu ñu demee après si la continuer dem boîte. mais yaa ngi foofu non. boobu five la woon. five waaw five la woon quoi. five la woon yàgg na. mais si temps yooyu. yaa ngi yaa ngi yaa ngi sa dig sa sa dig. doole comme yaa ngi doon battre rek. foo kenn baate ko foo ko ba man njëkk ba doon baatiraay baatiraay amul fenn. rek gis la waaye eh, man baatiraay ok Sadio amul baatiraay five la woon soirée normale fu laay yëpp. <laughs> dama dem am na benn jour aussi dama dem. <laughs> ma ne ko noonu ma ne ko noonu sama kooku sax kooku xam nga day entraîné quoi dafa ceeni am doole quoi comprendre nga. dafa ñëwoon suñu gàll quoi jour boobu dañ doon jënd lekk quoi pour dem lekk quoi après ñu xam nga ñu continuer dem ñaare dem. waaw comme kumpa kumpa xool bois de nu mel genre et tout. waaw yàgg na quoi deux mille côté deux mille treize yooyu la quoi après ñu dem foofu rek Cheikhou gis ma. Euh, waa ji après waa ji léegi waxul dara de. Mhm. moom nee na moom dafa gis waa ji rek ragal waaj ji loolu moo tam mu munul nekk ak man xaw ma la ak lan. lan la même ñu ñëw sélection bi rek quelque temps après ñu ñëw sélection bi booy gars jàpp ma di ma kaañu non. <laughs>